bismillah mbokk internet yu siiwal point net ziar nañ leen ñu doore ko ak mbirum tukki ko maanaam tournée économique bu njiitu réew mi Macky Sall doon amal démb ci aljuma ji fële ca Fatick ngir def fa ab conseil présidentiel moom nag yëkkati na fa ay kaddu yu artu jëm ci képp ku bëgg indi ay yëngu fii ci biir réew mi journal bi di l'observateur nag mi ngi ñuy digtal kàddu yooyee nga xam ne Macky Sall ma nga cee xamle ne moom ku ko xam ko ci ak diisoo waaye nag am na mbir yoo xam ne du ko mës a nangu ci ci ak dundam te kenn yi it ma ngi xam ne ba tey ne ñi yaakaar ne day xof ci kanamu yëngalkat yooyu di ay manifestant mën nañoo dal ndax moomkat kat pare na ci nguur gi waaye nag ba bis ba muy joxe lenge yi ki koy wuutu te yaakaar na ne Amadou Ba lay doon du mës nangu ku salfaañe réew mi mu dolli ca nag ne ñi ko bëgg a jéem nag mën nañoo seet ba xam bu boobaa dinañu gis doy na sëkk di ay kàddoom yu mujj ba tey ci wàllu politique kii di ay Aïssatou Ba di kenn ci ñu doon teewe àtteb Ousmane démb ci Cour suprême mi ngi ci risque bu rëy waral nag mooy ñàkk gu ñu ak ñàkk gu ñu seetlu démb ba ñuy taxawalaat audience ba ngir joxe kàddu gu mujj ga ka ko dëggal di àttekat ba moom mi wax greffier ba mu xamle ne kii di Aysatu Ba nag rocceeku na ci lu àndut ak benn leeral journal bii di Source A nag mu ngi ñuy xamal ni génn googee mu génn saal ba nag day tegtale ne jàdd na yoon ndax li ko tënk daf koo digal mu téye bépp secret bu aju ci délibération bañ cee wax ak bañ a wone lenn luy tax ñu xam boor mu féete même su fekkee déggowul ak naataangoom ca jamono yee ñuy waxtaan ñu tëjee ko ak xew-xew yu jaaxal ñëpp di ay sëy yu ñuy takk mu fees lool te tas gi mel ni xef ak xitti ñi ñuy woowee star ak célébrité sénégalaise ràññee nañ leen lool jamono yi ci mbir yooyu ay takk yu rëy yuy xemmeemloo seen moroom yi ba ñu bëgg a dugg ci sëy waaye ay tas yu gaaw lool ba di leen ragalloo ñu mën cee tudd ñu mel ni ndaxte loo ak Mario mbay Ndeye Ndiaye Banaya ak màgget fal ak kii di Rita Hora ak Fënna te mu nekk tas bi gën a bette loolu nag di firndeel rek ne sëy du pour milieu de vie waaye projet de vie la ñu leen di laaj nag mbokk internet yi ndax góor ñi ñoo yoratul wala jigéen ñi ñoo sëyatul à vos plumes jaa ngeen jëf ñu yendu ak jàmm